de comme tàngal bége non daal nga si de. waaw meewum dolli ma rek la ma jox. meewum dolli ma ratt piir mi. waaw ma ratt mi piir la. doon bouillon ma ne mooy Adja. waaw. bu doon boisson ma ne mooy punch. mooy punch. bu doon soow ne mooy. dolli ma dolli ma xam nga mooy messi soow yi. waaw cëm. di messi meew yi. di messi yi. ñam nga meewum dolli ma. laa ilaaha illallaah. xam nga dañ koo ratt meewum piir. mooy kii. Oh. dafa piire xool ko dafa piire. ma nga punch. cam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. nii la de. Ah. yaa ngi toog. Ah. yaa ngi nii. lii neex na. ah nii daal ngeen koy def. waaw ah. waaw ndox du bàyyi yoon ndox du bàyyi yoon ndox du bàyyi yoon. lu mu màggat màggat jàpp forot. dëgg la. policier lu mu màggat màggat nangu permis. du bàyyi dóor. maa la wax nii. dellul toog ma wax ak yow. Bousso xam nga lan laa bëgg nga dal woote jàmm sa kaw gis nga lu dul jàmm jàmm ko gën bi ngay door a wàcc ci kër gi am na noo defe ci kër gi ba mu gedd dem balaa kër gi man maa dem waxtaan ak moom ba indiwaat ko te waxtaan nag na neex boroom kër kër gi moom mii moo ko moom waaw ba mu koy tabax kenn fekkew ko gis nga baaba njéeme moom la wax amu fi dara caayam kese la fi am léegi nag lu ma bëggoon ngeen jéem a ànd doon benn loolooy dëkk yow comme xamoo loo wax baaba njéeme da jox na ma këyit kër gi mu ngi sama loxo ma <laughs> yéen yéen oto bee dem balem fii yéen yéen a tardé këyit gi la jox bu baax ba xam du bulletin de naissance bu baax moo tax ma wax loolu di mi ngi fii non lii mun ma koo ree damaa woor ay waay man damaa sonn. ku ma ñëw ku ma abal ma tibit. bu soo ah. man su ma wootee jàmm wooteel jàmm dégg nga baaba ñeme mi la fi indi xamul fu sama kayitu kër nekk yaa may dégg maa la la ëpp doole la gën a soxor duma ba nga bëgg a dee su ma wootee jàmm wooteel jàmm. <laughs> wootee jàmm rek wooteel jàmm bu so nañ jàmm moom du moo gën. Moussa daa mel ni am na mooy dégg am na mooy dégg ci ngeen yor yor. dëgg la tàngal ba baaba njéemee ñeme. musique bi ku dégg ci biti. kii moo tax ñuy ñambi ñambi. baaba njéemee kenn ëpp ko fi.

ma sa numéro yow foog ma seet la xam nga góor day dëral jigéen. ah góor day dëgal jigéen. yaa wax lii maa ko jox ma sa numéro jëlal ah. jeex na. ah laa la woo. ah dina ma neex de. ay. ay.

dafay xool rek bu suuf. day jot a dox. waaw waaw moom da nga koy enchaîner moom. donc maa ko moom mi ñëw. ci mooy tusu yéen. Yakalandı. Xoolal eh eh eh bàyyi nga ni du ma la weccoo kenn. mënoo ko. du ma la weccoo kenn. eh. kaay jàpp ci combat bi. lan la de